menaces yi di ko di ko barricadé kenn mënu fa dugg est-ce que Ousmane Sonko am na ay chance aussi pour pour pour génn ci mami. waa je pense que je pense que oui ci ci sama rafet njort ak xaw ma daal ci la laa ko wér mais <laughs> mhm. ah. man daal j'ai l'intime conviction que dinañu ko bàyyi mu génn. Mhm. parce que gëwuma ni dëgg-dëgg état de santé bi mu nekk ni mën na continuer nii Mahfouz wax dëgg yàlla. donc mhm. yéene bi vraiment mooy mu génn ci am naa yaakaar ni dina génn voilà parce que en fait ñu téye ko man dama gisul en fait intérêt bii nga xam ne am nañu ko wax dëgg yàlla au delà de tout cela aujourd'hui nu bu ñu ngi waxtaanee nii mais il y aussi tu vois Euh, une certaine pression familiale il y a une certaine pression internationale boo xoosi boo boo xam ne aussi am na ci am na ci solo bu baax bu ñu fàtte le le regard euh, des autres États par rapport à l'évolution de, la démocratie au Sénégal loolu aussi c'est important et ces avocats n'ont pas encore baissé les bras combat bi dañ koy continuer di mener sur le plan judiciaire mm-hmm. Mm-hmm. donc euh, tôt ou tard euh, pour mu pour mu vraiment mën a mën a mën a décrisper situation bi mu génn kaso gi mooy mais là où par je suis un peu d'accord avec toi mooy ne man gisuma utilité wu en fait toutes ces séries de conférences de mhm. presse à non plus finir mhm. je ne vois pas cette utilité là mhm. bi ñu ko dalee def ba tey ban impact la am en réalité par rapport ak situation bi nekk nii aujourd'hui xëy na ñoom li ñuy xeex au niveau de l'Assemblée nationale lañ ko war a mën a xeexee te malheureusement mënuñu ko xeex tant que pour autant defu ñu bloc ñu uni c'est-à-dire uni bi nag du opposition bi kese wala groupe parlementaire Yewwi Askan Wi kese c'est-à-dire il faut que képp koo xamante ne dëgg-dëgg pour le combat de l'injustice et pour ne pas que parce que tout simplement li xew Sénégal yow yaa ngi koy cautionné mm. nga am ci taxawaay bi war mais loolu soxlawul coloration politique est-ce que comprendre nga fi ma mm. bëgg a waxee mm-hmm. Cheikh Ousmane mm-hmm. Mm-hmm. soxlawul coloration politique nga am foo nga féete Pastef nga nekk euh, je sais pas moi parti vert ou, ou multicolore ce n'est pas ce ce qui est important c'est le principe et principe bi mooy nga xeex injustice bi lu dul yoon donc je veux dire dañu war a dépasser au-delà de la personne de Ousmane Sonko. Mhm. aujourd'hui xëy na peut-être c'est le moteur bi nga xamante ne. Mhm. moom moo tax ñun ñëpp ñu koy waxtaane parce que moom mooy leader politique bi am dayoo boobu. Mhm. bu war a a tax ñuy toog di ko waxtaanee ce n'est pas n'importe quel leader politique. bu fekkoon amul woon dayoo boobu amul woon euh, tolluwaay boobu xëy na du susciter autant d'intérêt ba muy mener ay débat tey mënoo def conférence de presse te tout mais il faut changer de méthode aussi il faut changer de stratégie par rapport ak li nga xam ne moom moo xew nii tey il se passe que aujourd'hui li ngeen amoon ci ay possibilités en termes de communication dafa réduite am na lu mhm. bëri loo xam ne da nga ko daan def dafa ko mhm. mais changer de méthode mhm. et c'est je ne sais pas euh, ce n'est pas à moi de leur donner des solutions politiques je suis pas dans la politique non fàttunu fépp parce que gis nga dëkkum démocratie tant que ñu ngi tuddee suñu bopp dëkkum démocratie mm. il y plusieurs voies et moyens démocratiques yoo xam ne foofu nga war a mën a jaar pour te faire entendre mm. mais les séries de com de, de conférences de presse et surtout que dañoo jegeyantoo finalement du am nouveauté en terme d' information bu ñu fa mën a jëlee impact hmm. Hmm. voilà et nous journalistes le même discours bu ñuy dem di bu ñuy dem cib ndaje hmm. dañuy soxla maanaam par rapport à la pyramide inversée bi ñu jàngal ñu xam qu'est-ce qu'il y a de nouveau lu ci bees dans les propos loo xam ne teniruñu ko woon sauf que le vocabulaire ne change pas en vrai le discours ne change pas donc aujourd'hui il faut changer de de de méthode il faut changer de stratégie pour se faire entendre et surtout il faut faire de telle sorte que et moi je me demande mais dëkk bi euh, ah, ah, où sont les autres où sont les autres opposants de ce pays ils sont où <laughs> mais non mais ñu ngi woote seen bopp opposition la ñu nekk anañu xam nga problème bi du bëgg Ousmane wala bañ Ousmane mm-hmm. du d'accord ak Ousmane ak ñàkk bañ a d'accord ak mm-hmm. Ousmane dañu ne euh, bu ñu nekkee ci réewum démocratie am na loo xamante ne droit loolu est-ce que et tamit euh, taxawaay taxawaay bi Ousmane Sonko amoon na parce que benn instant gis nañ ko daanaka amul woon en face Euh, Macky Sall euh, la Benno Bokk Yaakaar comme adversaire mais dafa amoon ñeneen ñoo xam ne si opposition bi la bokkoon ñoo xam ne si dem Ousmane Sonko daf leen amoon euh, mm. ni ñu ko attaqué mm. gis nañu Bougane sax mi nga xamante ni mi mm. waaw dañoo am ay ennemis yu bëree bëri ba nga xamante ni tey seetaan gii sax mën naa jàpp ni tey loolu moom moo ko indi ah. ah, tout cas euh, en tout cas man jàpp naa ne seetaan gii tey loolu moom moo ko ah. gis nga Cheikh Ousmane na première nga yeggali foofu euh, dafa am benn mbir moo xamante ne nii hmm. en fait il faut que ñu taxaw ci hmm. gis nga fi ñu jëm nii hmm. dafa dépassé ëttum politique xam nga lan lay yàq jikko yi foofu lañ jëm pour la toute bonne et raison que mais c'est normal que quand vous êtes en politique que ngeen nekk dëgg-dëgg ay ay adversaires cest a dire que même bu fekkente ne dañoo am adversaire bi nga xam ne dafa féete ci wàllum pouvoir mhm. ñeneen ñi nga xam ne dañuy yootu li nga yóotu ñooñu itam say adversaire lañ mhm. mais xam nga li ñu war a xeex ci réew mi lu dul yoon mhm. c'est-à-dire que dëgg ku ko fekkee itam ak quand boo mënti féete da ngay wax ne lii dëgg la loo fekkee lu dul yoon da war a d'accord ni lii du yoon mu ngi mel ni ñun aujourd'hui li ñuy kaas suñu corporation ñun en tant que journaliste bu ñu amee ñu ñu jàpp c'est-à-dire wax ñeneen ñi duñu wax après ñu ne dañoo bëgg dooleel mbir yi déedéet dafa am loo xamante ne nii ku mu leer ne bu ñu ko bàyyee muy dox. Mhm. nga yaakaar ne yow yëf yi du la laal. Mhm. booba xamagoo àdduna ni muy doxee ndax tey yow la ëllëg sa borom. donc buñ dee ay ay loo nañ ay ay loo ci ba ci lu baax nañ ay ay loo ci dëgg. et pour les règles de principe de démocratie et tout simplement parce que il y a une injustice qui est pour moi toute cette opposition là doit avoir une certaine position mm. et le faire savoir au peuple ñu xam ne dëgg-dëgg ñoom ci la ñu bokk xam nga nag ñàkk bañ a indi sa kaddu wala sa gis-gis euh, par rapport ak benn situation boo xamante ne moom moo am ci réew mi te mu intéressé sénégalais yi Cheikh Ousmane nga bëgg bàyyi ba loolu passe ay élection ñëw nga bëgg taxaw ne yow da ngay taataan baatu sénégalais sénégalais xam nga kom ni ko mami waxee <laughs> dafa loo xam c'est des combats de principe mm. loolu dafa war a dajale toute euh, toute l'opposition mhm. maanaam composée mhm. que yow nga bokkoo ak Ousmane Sonko gis-gis ka ngeen bañ a bokk gis-gis ka ngeen d'accord ka ngeen bañ a d'accord ka ngeen juboo ka ngeen bañ a juboo mhm. dafa am yoo xam dafa leen war a dajale mooy liberté d'expression droit constitutionnel calendrier électoral maanaam li nga xam ne mooy l'état de droit su fekkee ni yow am nga divergence ak Ousmane Sonko moo tax buñ ko aaye nemmeeku tuur waxoo yow barki démb bu nga dem benn tey dabaa ñu aaya ko. Mhm. bu Sonko génnee nemmeeku tuur ñu aaya ko nga ne doo wax parce que jubóo ak passif génn nga dem Kaffrine benn ministre di mhm. euh, di caravane yow ñu aaya la ko. Mhm. su fekkee jubóo ak Sonko moo tax bu ñu dissoudre passif waxu da nga bëgg a jot sa permanence ñu aaya la ko demit demit te toute l'opposition ont été victimes de cette nu mu tudd maanaam dakaawu injustice yooyu. Barthélémy Dias ngeen fi de campagne ñëw. ñu ngóofaan ko fii jëppal na ko doo campagne Diouf Sarr di war dëkk bi mhm. lan moo changé état booboo ci nekk de bàyyil bu suba ba muy xëccoo ñoom dara mu xool ndax danañ ko may liberté wu dérouler normalement cest à dafa am yoo xam ne c'est des combats de principe warul am couleur warul am euh, bannière maanaam sur lu parce que yow su fekkee ne man buñ ma jaay doole doo wax yow ëllëg boo génnee sénégalais bi bëgg changement loo koy proposé yow jaay doole bi d'accord nga ci di mhm. te sénégalais bi bëgg changer régime bi jaay doole bee tax bu bëgg ko fi jële mhm. dafa am yoo xam ne maanaam warul am xaaj ak seen léegi nag su fekkee ni ñëpp Pastef la ñuy joteel est-ce que du mooy déranger su dee comme ni nga ko waxee. Mhm. ñëpp am nañ problème ak Pastef. xam nga ñëpp amuñu problème ak Awalé. ñëpp amuñu problème ak taxawu bu ñëpp amee problème ak Pastef c'est parce que Pastef dérange ki nekk ci kanam rek la ñuy corner bu mu Pastef mujjee judd ca parti def exploit boo xam ne ñoom parti yi fi nekk yàgg fi defuñ ko wala leader yi incarné parti yooyu yàgg ci arène politique bi defuñ su Pastef mu ne couvrir l'étendue du territoire sénégalais su Pastef ëppee ay engagement ci jeunes yi ci mag ñi ci lu ne mais bien sûr Pastef va déranger. déranger même même même euh, ñi nekk ci opposition bi. daf leen di déranger mm-hmm. parce que Pastef leur fait de l'ombre tey ku ñuy waxtaane sonk Mm-hmm. même derrière les barreaux Sonko la ñuy waxtaanee. Mm-hmm. même ca hôpital ba sonkoo la ñuy waxtaanee en fait les autres opposants existé wuñ sax régime bi mayu leen espace bu ñu exi bu ñu existé yow kan gi gëj a gis activité politique gu Benno Bokk Yaakaar. bi ñu ñun bi ñu séddee terrain politique bi. parce que mm. mais rek dañuy xaar seen candidat non ñoom dañoo daw bu yàgg làqatu. derrière ñi ngi ci réseaux sociaux yi ku ne di euh, di di di def sa sa promotion. seeni candidat kay xanaa la seeni candidat seeni candidat ku nekk yaa ngi def sa promotion. parce que Benno amul benn candidat. loolu moom utopie la loolu jeex na. loolu jeex na benn candidat Benno loolu jeex na je d'accord ñoom xaaratuñ mais loolu dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw ah dinañ ci ñëw ma fàttali que ni yéen a ngi su yéen a ngi suivre seen émission euh, regard euh, donc comme ni ñu koy amalee tous les tous les euh, lundis Mamy sàmb ñu hmm. ñëw ci ci ci leneen ah muy Ngagne Demba Touré mi nga xamante ni ma nga ca Mali. Hmm. d'après li nga xamante ni bind na ko ci page Facebook am. ne mënul nekk ci réew moo xam ne si nii dañu koy traqué di ko di ko jàpp di ko bundu xatal moo tax mu préféré dem fi nga xamante ni moom moo di Mali exilé wu euh, ba nga xamante ni tey euh, réew mi soppi na doxalin mu soog a mën a mën a ñëwaat jàpp nga ni tey ngañ e, Ngagne ba ture nekkoon koo xam ne si ni ku ñu ràññeel woon ci Pastef ah, jiite woon euh, ndawi past patriotes yi jàpp nga ni def na le bon choix lu fait que mu dem Mali. yi euh, je sais pas j'ai pas la prétention de dire que def na le bon choix ce que je veux dire c'est que mhm. moom c'est son choix personnel mhm. euh, bi nga xam ne jël na ko par rapport ak euh, exil am xam nga exil nag moom mhm. euh, mën na nekk stratégie bu payante comme mën na mhm. bañ a nekk stratégie bu payante aussi mhm. euh, ça dépendra de ce que tu fais de ton exil mhm. ak impact bi nga xamante ne am na ko en vrai ce qui se passe c'est que aujourd'hui euh, ñi nga xamante ne jot nañ leen xam te ràññee leen ci parti Pastef ñu ñu ci bari ci ñoom jàpp nañu leen donc euh, keneen ki nga xam ne moo fi nekk yenn en général ci yenn plateau El Malick moom il a un bracelet électronique tu vois euh, donc euh, Ngagne Demba aussi on ne parle pas de n'importe quelle personne au-delà de sa carrure politique Mmh. Au-delà de tout cela c'est un juriste c'est quelqu'un qui connaît le droit c'est un greffier donc xam na yoon xëy na amaana il a fait le choix de de de partir de manière intelligente. pour ne pas que li dal ñeneen ñi dal ko. Mhm. pour ne pas que ñu ñu jàpp ko wala mu am ay griefs avec la justice sénégalaise peut-être que c'est un moyen pour lui de loin de pouvoir tenir continuer à tenir la communication euh, bi nga xamante ne moom la seen parti euh, war a am. wala jiite ay stratégie de loin yoo xamante ne xëy na peut-être dina am impact ëllëg de toute façon xam nga aujourd'hui mënul ñu juger de la pertinence de l'exil de de Ngagne Demba euh, tant que xamuñu yan impact en réalité lay def et ça il faut donner un peu de temps au temps moo fi desoon ah comme doon na bind doon na wax c'est ça tu euh, mu toog fi da doon mm. bañ ñu jàpp ko comme ni ñu jàppee ay ay ñooñam euh, jàpp nañu déjà son leader Euh, jàpp Bassirou Diomaye Faye euh, jàpp vraiment nit ñu bëri ñoo xamante ne ci ci ci patriote lañ temps yi passé aussi dañuy vivre benn semaine boo xamante ne dafa bëri ay vague d'arrestation ba ci mm. maire yi mm. yi nga xam ne dañu nekk ci ay localité mais ñooñu nga xam ne itam ils ont été élus au suffrage universel askan wi jox leen seen taataan ñu taataan baatu askan wi ñu fal leen ba pare ñu jàpp leen ci kaso bi loolu itam doy na waar mm. localité yooyu ñan ñoo koy gérer xam nga aujourd'hui moom ko ci benn région région am est-ce que dina fa am euh, politiquement je veux dire en fait Mm-hmm. quand tu as le sentiment que yow tu as les pieds et les mains liés mm-hmm. que yow maanaam dañu la dañu a yóbba nga ne ngoon lu donte buum nekku fi dara nekku fi mm-hmm. waaye mënoo gestu gauche mënoo gestu droite te mu am sas boo xamante ne dañ la ko teg parce que suite au changement du renouvellement du bureau euh, Ngagne Demba dafa gagné en grade par rapport ak li nga xamante ne moom mooy parti bi bu ñu ko jàppee tëj ko ci kaso bi il ne sera d'aucune utilité xëy na peut-être bu toogee itam ci réew mi te mënul def li mu bëgg def il ne sera pas peut-être que bu fi nekkul dina mën utiliser les moyens de communication yi nga xam ne moom la jote pour mën a justement conduire fi nga xamante ne foofu la bëgg dem et d'ailleurs noonu la ko expliquer que li mu bëgg def mënu ko def xëy na fii hmm. qu'il a besoin de de de d'être en situation euh, d'exilé dans un autre pays tout en sachant que normalement bu yeggee ci situation boobu moom war na bénéficier d'une certaine protection. Et le choix du Mali? C'est un pays proche. Euh, non mais qui lui a ouvert ses portes si nii am nañu frontière avec le Sénégal. mais tu sais le Mali la Guinée le Burkina le Niger même actuellement bi ñuy waxtaanee. Mhm. c'est-à-dire que dafa doon ay dëkk yoo xamante ne ni sur le point de vue politique dafa am ay jalons yu ñu posé Mahfouz je ne sais pas ndax tu es en train de voir ce qui se passe en Afrique de l'Ouest ña fa nekk d'accord euh, mais coup d'état yooyu moo am aussi Guinée mhm. moo am Burkina moo am moo am donc xam nga tey ce qui se passe un réveil des consciences mhm. boo xamante ne c'est une certaine jeunesse africaine on l'a dit et répété sur les plateaux ici boo xam ne dañu dañu changer la donne mënoon na dem dëkk boo xamante ne nii euh, dara xew fa am na stabilité am na possibilité boobu mais pour moi Ngagne Demba les choix qu'il fait je j'estime que ce sont des choix euh, intelligents yoo xamante ne daf koy permettre moom ci quelqu'un boo xamante ne qu'il est rodé en droit xam na fu mu war a man a teg tànkam bu baax a baax et surtout ce qu'il veut éviter mooy les arrestations ak les interpellations mm-hmm. parce que bu ñu ko tëjee ci kaso bi il va être euh, aussi impuissant comme ñi nga xamante ne dañu tëj ci biir ci biir kaso bi voilà impuissant mm-hmm. gaw ma ne action yi nga xamante ne dina ko bëgg a mëne dina ko mën a mëne maintenant est-ce que exil bi am na pertinence ou pas comme je l'ai dit le temps nous le dira d'accord Cheikh Ousmane yow noo gisee euh, exilu ngi koy wër mais même Mali sax kenn